Rewmi 24 TV bisimillah dal leen ak uh, jàmmo ci xibaar mercredi 13 décembre Ousmane Sonko dafay nekk candidat di ay révélation yoo xam ne kii di Mara Niass moom moo ko wax moom mii di Mara Niass nag ñu bari ci askan bi rek dañu koy bàyyi xel bari na lu muy wax rek loo xam ne dañu koy gis moom mii di uh, Cheikh Mara Niass ma ngay xamle na rek loole dina am kii di président Ousmane Sonko rek yàgg yàggam dafay dugg ci pale bi 2024 ndax loolee moom la gis kon ñi nga xamante ne rek dañ ko bëgg di xaaru Mara Niass rek 2024 ñu daal di koy yóbbu li nga xamante ne VAR loolee du am mu mel ne rek Mara Niass kon gis nañ rek Ousmane Sonko dafay nekk candidat ndax verdict bi nga xamante ne war naa génn suba tombé ak 14 décembre ñii di waa tribunal war koo génn rek ndax dañuy delluwaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi am déet moom mii di Mara Niass daal ma ngay xamle rek ak lu munti am Ousmane Sonko moom dana dugg palais moom mii di Mara Niass sax njëkkul rek may wax loolu waaye kii di Cheikh Bara Ndiaye tamit yëkkati na yooyu révélation moom mii di Cheikh Bara Ndiaye tamit ma ngay xam la ne rek bu ñu demee ba suuru vote yi février 2024 dinañu gis bulletin Ousmane Sonko moom mii di Cheikh Bara moo xamle ne loolu lu mënut a ñàkk dafay am ndax kat Ousmane Sonko gis na ne rek dina doon candidat ak wax ji lu muy bari bari yëpp kii di Ousmane Sonko moom dina présenté wu ci présidentielle 2024